salaamaaleykum sama gars yi ñu ngi leen di siyaare bu baax baax fii ci Rewmi Sport talaata le 16 juillet 2024 ñu ñëw ci euh, revue de presse yi bu fekkee ne abonné ko ñoo ngi sàkku nga abonné partage lii di vidéo bi activer cloche de notification bi pour que vidéo yi nga bokk si ñi koy jëkk gis fii ci Rewmi Sport revue de presse ñu ngi ànd ak Serigne Cheikh Al Amin Mbacké asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àdduna seen jaaxle jeex na ci wàllum ñaan ak sëriñ Cheikh Al Amine Mbacke di set ci Serigne Sidil Mokhtar Mbacke yow mi xam ne cat moo la sonal wala nga bëgg kaaraange ci sa bopp woowal Serigne Cheikh Al Amine yow mi bëgg bayre njaay wala nga bëgg bayre ci sa bopp woowal setub Serigne Sidil Mokhtar bi yow mi sa loxo yaatu loo yor mu gaaw a dem jokkool ak Al Amine Serigne Cheikh day jëng si la jëm ci wàllu juboole moo xam ci wàllum sëy moo xam ci wàllu xarit ak xarit yow mi nga xam ne aussi da nga am problème mu kayit moo xam nga nekk fii ci Sénégal bëgg génn réew mi wala boog nga nekk ci bitim réew bëgg ami kayit mën a dellu siwaat fii ci Sénégal jokkool ak Serigne Cheikh Al Amin Mbacke Al Amin Mbacke nag mën ngeen ko woo ci 77 798 78 81 war ngeen woo ko ci 77 655 71 31 Serigne Cheikh Al Amin nag bàyyeeguñu ba tey ndaxte indil nañu ay fas yu ama am solo. fas ga ngi lakk dëkk waaw moom ñëpp xam nañ lay mbiram kenn nattab léewtu ko képp koo xam ne dangaa nekk mag baa ndaw am jafe-jafe néew kattan moo xam sa awara di nooy di lax ngay gaaw a yegg wala nga nekk nit koo xam ne santirooto sa bopp dara ci ngóor a jëlal fas gi fas la koo xam ne ci sama maam la jógee mu doon dond billaahi wallaahi wal kitaabi at yoo mën a am boo ko taqee taquk néew kattan loolu Sénégal gépp xam nañ ko adduna bépp xam nañ te njariñ dañ koy baaxee moo tax buur ñu ñëw indil sénégalais njariñ yi ñu jàkkaarloo mooy fas gi nga xam ne ci néew kàttan képp lay dox du lay naan du lay diwoo na leer ndax fi jamono toll naan ak diw dala wóor ci al amin mbàkke surtout seex si li muxtaar mbàkke radiallahu taala anhu kon na gaañ fas gaa ngoog dawal wuti ko ci nu bu gën a gaawee revue de presse dañ koy commencé fële ca record donc ca Futur Média dëkk na ci li nga xam ne moom la ñuy tuddee ballon door bi nga xam ne ki ko mujjee remporté moom mooy Lionel André Messi maintenant quel euh, favori pour le ballon d'or ginnaaw Copa America bi jeex na li nga xam ne moom la tuddee euh, Copa America bi bi jeex na li des mooy mooy euh, ñu jublu nag ci saison bi donc le 27 octobre bi ñu dëkkmal dinañ xam kan mooy wutu Lionel Messi moom moo tax record di wax ne léegi kan mooy ki nga xam ne moo gën a jege moo gën a yay pour gagner. teg na ci ku ci demee ne Bellingham remporte la Ligue des Champions avec Real Madrid finaliste Euro avec ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Angleterre Vinicius donc euh, champion aussi Ligue des Champions. avec Real Madrid et les aussi Rodri mi nga xam ne moo terminé comme meilleur joueur ci côté Europe bi remporte Premier League avec Manchester City Dani Carvajal donc a tout gagné que ça soit ligue champion prime euh, lii di euro ou bien li nga xam ne moom la ñuy tuddee Liga Lamine Yamal aussi le meilleur jeune joueur ak ki nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, kii di Lautaro Martinez donc ce sont des joueurs yoo xam ne ñoom ñoo wax kan lañ kan moo war a gagné Ballon doo record moom mooy laajte question boobu. la presse Harry Kane sans euh, couronne journal bi nga xam ne moom la ñuy tuddee Stade. yéen a kaay donc moom dikk na ci numéro 9 bu équipe nationale bu Angleterre ak ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Bayern Munich Harry Kane ba tey jii nii après fanweeri at mësul gagné li nga xamante si ne moom mooy compétition moo xam. Euh, avec un, club moo xam Tottenham moo xam Bayern Munich ou bien même équipe nationale bu Angleterre et pourtant amoon na plusieurs opportunités pour comme la Ligue des Champions finale contre Liverpool da ba mu demee Bayern Munich même pas donc 24 heures déjà finale la joué donc fu na finale Euro aussi en 2021 contre euh, Italie perte ko et barki démb aussi mu joué finale contre Espagne daal di koy perte kon dafa doon koo xamante si nii dafa ñàkk sax parce que bu ñu xoolee au xamante ne six yëpp la perte six final yoo xam ne six yëpp la perte moom la numéro 9 moo tax stat bi yéen kaay di wax ne attention pour Harry Kane mu daal di jeex sans lii di trophée dañuy bàyyi ko fii ci Sénégal daal di jubali fële nga xam ne mooy ca Angleterre njëkk ak journal moom dikk na donc ci ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Southgate équipe bi nga xam ne moom la ñuy tuddee waa Angleterre après bi ñu leen éliminé ki leen tàggat dina toog ak ki nga xamante ne moom mooy président fédération Angleterre de football bi pour que ñu waxtaan ci ëllëgam. est-ce que day dem est en tout cas première information yi nga xam ne jot nañ ko mooy que fédération bi daf ko bëgg a conserver dafa daf ko bëgg a téye mais nag est-ce que moom ci boppam moom këtsu bi du démissionner après daal wax nañu ne dina waxtaan ak li nga xam ne moom mooy njabootam waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la war a waxtaanal pour xool ba xam li gën mooy nag mu daal di euh, tekki ndombal tànkam bàyyi keneen doxal keneen kooku nag gaañi solo journal bi di euh, Star Sport ancien entraîneur bu Chelsea bi ñu koy wax Graham Graham Potter donc moom la ñu wax ne moom mooy euh, le sélectionneur donc favori pour li nga xamante ni moom mooy le remplaçant de ki nga xam ne moom la ñuy tuddee kii di Southgate kon Graham Potter mi ngi ci liste bi euh, kii di Star Sport nee na moom mooy lii di soit numéro un bu fekkee ne Southgate daal di démissionné na. dañuy bàyyi ko donc foofu ci Angleterre jubali fële ca Espagne ka journal bi di AS foofu ci Madrid dëkk na donc ci euh, célébration bi nga xamante si ne donc am na démb foofu nga xamante si ni moom la ñuy tuddee ca Espagne ginnaaw ba ñu remporté euro bi barki démb contre ki nga xam ne moom mooy Angleterre 2 ki nga xamante si ne moom la ñuy tuddee Alvaro Morata moo nekkoon capitaine bi moo nekkoon leader bi moo tax moom la ñu joxoon li nga xamante si ne moom mooy micro bi moom moo dirigé woon li nga xamante si ne moom mooy euh, lii di animation bi ci côté li nga xamante si ni moom mooy seen gi ñu doon wane ndaxte lu tolloog demi million dikk nañ fa maanaam daal lu tolloog 500000 supporters euh, yoo xamante si ni ay France Espagne leen donc dikkoon nañ pour tertu li nga xamante si nii moom mooy les quatre champions d'Europe di ñi nga xam ne ñoom ñu tuddee waa Espagne euh, la nga xam ne nag génn nañ ko fi comme message mooy que euh, toogaay amul léegi li ñu bëgg mooy jublu ci li nga xam ne moom mooy coupe du monde bi ginnaaw dindi nañ li nga xam ne moo fi amul depuis 2012 ba day amaatul di Europe léegi nag mooy li nga xam ne 2010 la gëj am di coupe du ñoom li ñu bëgg moom mooy indi ko fi. ki nga xamante si nii moom mooy Espagne ba tey dañuy continuer Mendo Deportivo moom dikk na ba tey ci célébration maanaam daal euh, seen euh, coupe bi nga xam ne doon nañ ko wane wanele ak supporters yi bokk na ca la nga xamante si ni aussi moo ci gënoon na fës muy les deux soyaux yi nga xam ne ñoom ñoo porté woon vraiment euh, l'armada offensive bu côté ki nga xamante si moom mooy Espagne di kii di Lamine Yamal di ki nga xam ñoom daal sax boo xoolee démb ñoom ñoo donc doon téye li nga xamante si ni moom mooy ambiance bi foofu nga xamante si ni moom mooy ca euh, lii di Espagne kon ki nga xam ne moom mooy Lamine Yamal surtout Nico Williams Nico Williams match bi dafa jeex rek keroog mu daal di wax ne léegi nañu focus ci coupe du monde bi parce que actuellement personne. Euh, mënuñoo gagné ci li nga xamante si ni moom la ñuy tuddee ab match de football maanaam daal Nico Williams ci boppam moom dem na ba yaakaar na sax fi ñu toll nii bépp équipe boo xamante si ne taxaw na ci kanamu Espagne Espagne donc mën na laa fel dem sans problème donc moo tax ki nga xam ne mooy Nico Williams ne nañu focus ci coupe du monde bi te xam ne mën nañoo gagné coupe du monde comme ni ñu ko defee ci li nga xam ne moom mooy euro dañuy bàyyi ko donc fi nga xam ne moom mooy ca Espagne jubali fële ca Italie fekk fa soxnaal bi di La Gazzetta dello Sport donc après ba ñu gagné li nga xamante si ni moom mooy Copa America bi La Gazzetta dello Sport dikk na ci ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Lautaro Martinez mu ne presque presque personne donc euh, n'a fait mieux que lui daanaka kenn deful li nga xam ne moom la def moom kii di Lautaro Martinez waaye après bi nga xam ne terminé comme meilleur buteur Serie A comme bi nga xam ne seeni terminé meilleur buteur aussi Copa América champion Italie avec Inter de Milan coupe super coupe d'Italie avec Inter de Milan et champion euh, de sud Amérique avec ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Argentine donc nga xamante moom la ñuy tuddee Lautaro Martinez li nga xam ne réalisé na ko ci saison bi kenn defuñu lu donc loolu euh, moom mooy propagande bi nga xamante ne moom la amal daal La Gasta dafa pare moom pour ñëw imposer Lautaro Martinez pare pour ko góol parce que ñëpp ñu ngi naan Rodri ñii Vini ñii Jude Bellingham ñii keneen ak keneen mais dañuy fàttali ne Lautaro Martinez aussi a réalisé donc une saison excellente avec Inter de Milan. ak aéro national bu Argentine dañuy bàyyi ko donc la stade de l'espoir jubali fële euh, donc dikk na moom ci yenn ci ay dossiers yi nga xamante si nii kii di euh, Juventus bu Thiago moo tax donc dinañ ko euh, dinañ ci jublu ci weerub juillet bi ni jàpp ba weerub li nga xam ne moom mooy août bi nga xam ne si ni ci la ñu dëgmal ki nga xamante si nii moom mooy Juve mi ngi bàyyi xel quatre dossiers donc benn ci dossiers yi le dossier de milieu de terrain hollandais di ki nga xam ne moom la ñu tuddee Koop Meniers donc football fële ci Atalanta Bergame le dossier de ki nga xam ne moom la ñuy tuddee kii di Todibo di défenseur central bu Nice le dossier de Adeyemi et kii di Sancho Adeyemi ak Sancho nag mën nañoo jàpp ne benn dossier la lu tax ñu ne benn dossier la parce que gëmuñ ne équipe bi moom la ñuy tuddee Juve pare na pour recruter les deux joueurs en même temps maanaam daal dafa bëgg ngooy ci kenn ki pour que bu euh, kenn ki ñëwul nag mu daal di jël ka ca waaye ñoom ñaar ñëpp dikkandoo euh, foofu ci biir Juve nekkut li nga xam ne moom mooy euh, projet bi actuellement kenn ci ñoom ñaar daal la Juve bëgg Sancho ou Adeyemi toujours donc foofu ci Europe la ñuy des ba tey dem fële ci record mi ngi foofu ci Portugal Di Maria donc euh, wax na li nga xamante si mooy kàddu yu mujj avec équipe nationale Argentine donc après ba mu remporté li nga xamante si moom mooy ñaareelu Euro ci fa Copa América ñaareelu Copa América ci fàttali nag Di Maria gagné woon na li ñuy tuddee Jeux olympiques jeux olympique bi nga xam ne dina commencé lu yàggul dara dina jaat gagné ko en 2008 euh, avec aussi Lionel Messi ci terrain bi donc Angel Di Maria bërki démb moom it moo doonoon match bu mujj ak équipe nationale tax mu ne nag Benfica fi ñu toll nii moom moo pare pour profito ci Di que ginnaaw ki nga xamante si Di Maria nee na pare na pour continuer li nga xamante si mooy football en club euh, te pare euh, que dina a jàppale pour que ñu mu gagné li nga xamante si ne moom la ñuy tuddee lii di euh, championnat bu euh, Portugal dans les donc prochaines années maanaam année prochaine. ki nga xamante si ni moom la ñuy tuddee record euh, dañ fay jógee jubali fële ca Olé di benn journal bu nekk ca Argentine moo ngi ñuy yëgal ne bu Argentine gagné tey li nga xam ne mooy Copa América bi peut-être que bokk na ci li nga xam ne mooy expérience expérience pour lan parce que laanaka ñii si ëpp. ci groupe bi nga xamante si ni ñoom ñooy gagné tey lii di ñaareelu Copa América 2024 bi parce que ñenn ñi dañoo am expérience bi mooy lan ñii ñoo gagné woon coupe du monde bi ak ñi nga xam ne moom mooy Euro 2021 donc euh, ak ak nga xam ne ñoom ñooy Copa América 2000 2021 donc c'est c'est normal pour que ñu daal di gis li nga xamante si ni moom mooy équipe bi mu muy jouer sans pression parce que ay Di euh, ba ci seen entraîneur bi di Lionel Scaloni Lionel Messi euh, donc De ñooñu ñëpp ce sont des joueurs yoo xamante ne déjà xam nañ lan mooy cafkak final xam nañ naka la ñuy seere pour dem ak li nga xamante ne mooy final sans donc ki nga xamante ne moom la tuddee Ole nee daal cale victoire bi contre Colombie moom mooy jouer sans pression jouer avec beaucoup d'expérience euh, jouer aussi avec beaucoup de talent foofu nga xamante ne moom mooy ca euh, Inter de Miami. dañuy jubali fa li nga xam ne moom mooy ca l'équipe balaa ñu caa yegg bu fekkee ne abonné go ñoo ngi sàkk nga abonné gaa ñi fii ci réew mi sport rapidement donc partager aussi c'est important lu jëm ci wàllu scène bi l'équipe donc 10 jours donc euh, qui von compter fukki fan rek buñ ko wàññee daanaka dañuy yegg ci li ñu tuddee jeux olympiques waaye le 26 juillet bi nga xam ne moom la ñu dëkkmal moom mooy euh, jeux olympiques yi war am am fële nga xam ne moom mooy ca Paris Euh, ki nga xamante ne moom la ñuy tuddee euh, waa France donc pare pour dalal li nga xam ne mooy xew mi xam ngeen ne xeet sport yi nga xamante ne daanaka xam nañ ko ci àdduna bi yëpp dinañ fa daje lu jëm ci wàllu basket bi lu jëm ci wàllu handball beeg lu jëm ci wàllu euh, tennis lépp donc dina ci jeux olympique bokk na donc ci compétition yi nga xam ne moom la ñu gën bàyyi xel ci àdduna bi parce que bépp sport boo xam ne xalaat nga ko rek daanaka da nga ko fa nemmeeku ci li nga xam ne moom la ñuy tuddee jeux olympique yi kon Thierry Henry moom moo yor équipe nationale bu France pare donc pour remporter ci biir nga ne moom la France.